que après gravité autour de la la ko joxe. kon candidat bi aussi bu ko la hmm. ko président waroon limoger. ca ah, saasa justement ca saasa la ko waroon dàq. parce que loolu c'est c'est inacceptable c'est parce que c'est le secrétaire exécutif moo ko ne tànnal kon ki mu tànn waroo jee d'accord. ah am ah, na sax yooyu eh, man mi ngi koy mi ngi koy wax nekkuma fa. c'est pas parce que nekkoo fa que ne t'applique pas. Hmm. non franchement. candidat de raison bi muy bi ñuy wax ni président loolu la candidat de raison yow noo ko déggee. ah mais il est obligé parce que en man li ma jàpp mooy buy tànn ku mën a gagné lay tànn. waaw ah. du kii bu fekkoon <laughs> parce que Idriss moo ko daan wax ay bon soo ko waxee Sénégal day xaw a rek ne Idriss Seck ne téeméeri dof ci politique parce que téeméer bi ëpp na am na moo ëpp majorité <laughs> au simple ça c'est-à-dire bi jàpp ne moom bu ñu jàpp ne mën naa gagné boobu moo gën ci moom maintenant nag yàlla na na ko yàlla xëy nag ci a gagné na nekk nekk candidat boo xam ne aussi mat na président de la république am na ci majorité bi bon am na ci majorité comme am na ci opposition bi quand ah. Ah, te war naa mën a xool ci opposition bi Oh, je ne crois pas que nous continuons parce que Bon, moi j'aurais préféré, hein, parce qu'aujourd'hui, hmm. pour moi, avec tout le mal que Sonko a causé au pays et le pasteur, le président devrait créer un bloc républicain et démocratique. Ah oui. Voilà, l'on l'a créé pour faire face au populisme et à l'islam politique qui, de mon, de mon point de vue, représente les plus grandes menaces qui, qui notre pays depuis 1960. C'est ça. mais malheureusement gisuma. oui ci axe boobu la or ce qui doit boo xam ne nekk mooy pour xeex politique qui est là au Sénégal le mouvement islamiste et politique est là et qui de bon soit je dis que les deux le seul pays de l'islam au monde c'est gisuma Sénégalais bu fa bëgg a dëkk ah oui booba sans limite moom dañ koy tëj. parce que dans les républiques islamiques soo andi entre guillemets. oui a pas démocratie. y' a te ñun nag Sénégal suñu deret ji yàlla da koo mooñaale ak pluralisme. ak liberté. voilà donc euh, en gros bon je crois que si à la président à la place du président. je me focus c' est vrai dinaa xool suma suma camp. Hmm. APR Benno mais dinaa ko jéem a ubbi. mu gën a yaatu pour créer un arc républicain et démocratique. pour faire au populisme et à l'islam politique. est-ce que populisme boobu noonu da nga koy lié ak li xew. dans la sous-région. ah oui yi fi am. ah de plus en plus gis nañu. muy gagner du terrain. on est en train même de se poser la question après le Gabon. à qui le tour y a dans la sous-région mais fondamentalement c'est coup d'état la li muy li muy jàngale mooy que la la démocratie n'est pas encore suffisamment ancrée dans la conscience des Africains. loolu la quoi xam nga gis nga suñu réew mi moom soldat bu doon jéem a dof dof jël. Hmm. ba fi xam ne Sénégal du caaxaan. ñun au am na lu ñu gëm parce que affaire le fait que ñu toog de 1960 ba léegi y' a pas parce que y' a pas peut-être y' a des militaires peut-être qui voulaient prendre le pouvoir. peut-être y' a des civils qui le am na lu ñu gëm bu ñu gëm ne état am na république bu ñu gëm ne république la Sénégal yëpp wër na leen ne président la bu ñu ko bëgg a jëlee mu jóge fi. ah loolu leer nañ Sénégal yëpp loolu leer na leen si lii ñu mel ne am suñu liberté dox suñu soxla kenn ku ne wax xalaatam jàpp naa ne Sénégal yi bañu ñu loolu. Hmm. Sénégal yi mu bëgguñu dictateur Senghor daanaka wax naan Sénégal Sénégal yi mënut a dund ci dictature loolu moo ñu musal ba léegi donc ñun. Euh, ñun Sénégal daal bokk ci réew yi mu seqal fii. waay bokkuñu quoi. ñoo leen ñoo leen raw quoi voilà ñoo leen raw. xam yi am Niger ak yi Mali. loolu moom am Sénégal sedd quoi. Ah. parce que même les militaires qu'on a c'est des militaires de qualité de de très haut niveau jàng comme lii jàng comme civil yi. Hmm. tànn tànn armée c'est des républicains jusqu'à la moelle épinière. Hmm. et là moi je n'ai aucune inquiétude. Hmm. moi mon inquiétude ce n'est pas au niveau de l'armée. ah mon inquiétude au niveau on a une classe politique nag pour attirer pour ah. dañ ci dañ ci tey. ah, ah, ah bien sûr ah lu meilleur que classe politique dafay ay coulement ñàpp yenn dañ nangu leen di leen toojal. waaw toi aussi duñ toojal nem <laughs> kon nañ bàyyi xel ci choix wu. prochain président ah mais un bon de la de la de la qualité de la de de la posture am xam-xam mën a mën a mën a wax ak nit ñi. yaatu dënnu voilà kooku kooku la Sénégal sox parce que nag quand même. Hmm. c'est-à-dire pour quoi qu'on dise quand même Senghor bi nekk président de la République quand même borom xam-xam Abdou Diouf tegu ci bien formé expérience bu kenn mënut a tabli Abdoulaye Wade quand ak loolu ci mën a wax jàng na ko jàng mu sori am expérience bu wóor a wóor cest à que pour le moment les quatre présidents de la République que nous avons quand même wax dëgg yàlla poste yi ñu jor yeyoo ko nañ fexe ba 2024 ki ñu tànn aussi am am am am boobu am carapace boobu quoi. parce que dañ koy xaar au delà de l' élection de 2024 maanaam jour bi ñu ne moom la ba ñu programmer résultat yi ba ñu installé ko dañu koy xaar après. kii saa la nekk wala le président ah moo tax nga bëgg ñu gën a bàyyee xel ci choix bi. absolument parce que après choix bi daa am Sénégalais yi cette fois ci du ñu fol lii dañuy ah, fal. Ah. xool ki ñuy fal personnalité am kan la. naka la mel fan la juddoo naka la yaroo fan lan la jàng lan la xam. yan jaar-jaar la am. Hmm. ba xam ban personnalité nit ku jub la wala nit parce que nag kilifa day am daa war mandarga yu war a mel bi des mu ne nag bu ma faloo lii laa bëgg a def. lii laa bëgg a def gi nag laa la wax sànq ne li mu war a dig waa Sénégal boo bu ma bu ngeen ma falee dana leen ñaqloo su ngeen ma falee dana leen ñaqloo loolu mooy programme bi jërut jërut sax yi bari da nga naan rek bu ngeen da ngeen ñàkk ba tooy xëpp. noo ci nar a joué ban nga ci nar a joué. alors que xam nga parce que yow day dégg ci éveil des consciences. bu fekkee ñu ngi gis candidat waaw réforme le candidat qui me semble être le meilleur pour le qui peut gagner. Hmm. et qui me man yi Sénégal am. Hmm. réponse ba ñu jëkk nag mooy xeex le populisme ak l'islam politique. projet bi nag boo paree nag defaraat nit ñi defaraat sénégalais yi. parce que nag Sénégal dañu leen a bàyyi seen bopp rek ñu neexal neexal ñi nga gis ab ab ab camion dem ga di jaar ci kaw ak sax ab raay nga gis ay oto yu surcharge nit ñi trottoir yi ku mu neex nga teg jaay ma mel ni ñu def ko atelier ak i magasin ça c' est pas possible un réew réew mënul développé dans le désordre et dans l' indiscipline. Hmm. président bi boo xam ne da ngaa bëgg a defar Sénégal bàyyi fi désordre bi ak indiscipline bi yaa ngi nax Sénégalais yi. maintenant boo bëggee def julli désordre ak indiscipline da nga jànkoonteeg sénégalais yi. Ah. parce que nag dañu yàgg a bàyyi ci désordre ak indiscipline bañ defee ne loolu mooy dëgg te loolu mënut a ñàkk dañ. te yow di nga accompagner initiative yu jëm ci yooyu. absolument absolument d'ailleurs bon suma suma académie bi ma créé. oui académie bi gestion de la citoyenneté. oui ah nous li ñu war a sopp ci réew mi. lan la ci yow ay ay fora lay doon ay. ay table ronde de conférence table ronde de conférence vous allez inviter des. des oui oui des débats des choses comme ça quoi. sur li ñu war a soppi ci réew mi teg du ci baram ne lii daa bon dañ ko war a dindi. ah candidat bu ñu mën a laaj nag loolu loo ci xalaat. c'est-à-dire bu ñu nee un euh, statut spécial de Touba. sëriñ ta politicien nag bañ a raay bañ a waaf nag ñu tontu lan lañ xalaat lan lañ ko gisee exactement li ñu xalaat ñoom. ah oui nañ wax li ñu xalaat ah bu ñu nee inondation nag nga ne programme bi laa yor. waaye doo ñu naan innovation yi baaxul def nañ ci sept cent milliards d' accord def nañ ci sept cent milliards bu pare waaye yow boo yore réew mi lan ngay def ba innovation yi dakk parce que nag réew moo xam ne nawet ñaari weer lay taw nawet toog dix mois kenn du fi taw. Hmm. ndox waru faa yàq ndox waru faa yàq. programme bi wax mooy ndox bu mu fi yàqu di mu fi yàqu loolu la ñu war a def. ñu lay gërëm <laughs>